ñu dem ci euh, l'observateur li mu xëyee tey jëlee ci altine bi euh, ci xëtam mu njëkk bu dee noppi na Pape Samba ñu xool l'observateur yër ko tuuti ci xëtam mu njëkk bi gis ngeen ko tey jëlee à la une euh, Mansour Faye la grande offensive moom la def tey l'interview sur sa candidature candidat belle famille présidentielle homme du président projet médiation yooyu yëpp mi ngi ci diggante page 4 ak 5 bu journal bi et puis arrestation de l'avocat franco-espagnol di Juan Branco la traque et les tracas page 6 ak 7 batterie euh, d'infraction et le degré d'implication des maires complices maires yi ko jàppale ñu ne ba mu dugg ci réew mi et puis euh, ce qui a perdu l'avocat maître Babacar Ndiaye son dossier vers l'instruction euh, Sonko affaibli par la grève de la faim moom Ousmane Sonko mi ñu ne dafa door grève de la faim ba sonn ba ñu yóbbu ko urgence ba tey ci l'observateur ñu ñëw ci marché bi hausse des prix le ministère du commerce en fait ses oignons lu ci mel agence de régulation des marchés mi ngi naan am na ay mesures yu ñuy jël mu ngir fexe ba yokkute bi ñu nemmeeku ñu mën koo maîtriser bu baax a baax ci wàllum euh, prison bu Thiès ay nouvelle ci Ali bu ngeen fàttalikoo daaw moom moo defoon fusillade ba fële ca marché euh, central ba ca mbuur mi ngi ci page 8 ab dossier bu lob sa xëyee tey jile chirurgie esthétique euh, Bijou euh, Ngoné ak Adja Diallo Halima Gadji la séance d'explication des Sénégalaises qui ont refait leur plastique maanaam dem defaraat seen yaram muy euh, yenn cër yi fii ci ginnaaw ak ci kanam ak yu ni mel entre perte de confiance et faible estime de soi mu mel ni ñeen ñi dañoo wóoluwul seen bopp wala dañoo gëmul seen bopp moo tax ñu koy def afro basket féminin bi Tafa Gueye un coach à la méthode clivante maanaam méthode bëri d'accorduñ ci la défaite des Lions de Sierra mi ngi ci euh, page 12 bu l'observateur ci tàggat yaram la ñuy des ba tey ak record cette fois ci muy beneen journal groupe Futur Média di édité gis ngeen ko saajo maane ak CR7 ñoom ñoo nekk ci euh, natal bi Al Nassr deux matchs ont suffi Sadio et CR7 gis nga leen copain comme cochon l'entente est déjà parfaite Et puis Community Shield finale Arsenal joue un joue un tamit ci Ligue 1 bi 26e et dernière journée l'AS Douanes avec le en Ligue 2 euh, jeu de la francophonie 25 médailles le Sénégal quatrième au classement les Lions U25 parés d'or fructueuse moisson de la lutte Afrobasket bi ñu doon wax sànq défaite en euh, finale 74-84 les Lions butent encore sur les D Tigress Sierra Dillard dans le 5 majeur du tournoi muy information yi ngeen mën a lire ci euh, record moom ak l'observateur ñaari quotidien yi Groupe Futurs Médias di édité ñu jàll ci météo bi en express ak Oumy Samb Oumy Samb ginnaaw ba ma la nuyuwaat